taalibe yi ngeen àndal rek mbokku jullit yi ngeen àndal te ñu ñëw doon su mbokku jullit doon suñuy mbokku taalibe. ngeen di bi lépp coulage la lépp coulage la mooy souterrain bi yëpp amul benn brique bu ci dem biñ couler voile bi ba noppi nag ba nga xam ne li ñuy wax raser raser def na ko léegi nag dañuy bëgg a jëm ci kaw jëm ci kaw maanaam wàllu dal bi ci lañ jëm waaye dal boobu nag dafa am lu mu laaj euh, li mu laaj mooy ay poutre yoo xam ne mooy téye mooy téye dal bi nga xam ne poto bëri na noppee boobu songaat nañ ñaareelu pàcc bi buñ noppee nag soog a jël pàcc bi ci digg bi soog a jël pàcc bi ci digg bi buñ defaree buñ kulee poutre yi ba noppi ci lañ euh, dale dale dale souterrain bi yëpp nag buñ ko daree ba noppi soo cee teg rez-de-chaussée bi soccoot ak premier étage muy ñetti niveau yu bokkul liggéey bi nag gis nga wax naa leen léegi rek ne leen quatre-vingts poto am na ko ci biir waaye nag ci biti am na poto yoo a génn ci biti ndax buñ buñ bu ñuy def euh, rez de bi day def benn sayma sayma boo xam ne day génn ci ci wet yëpp kon ñeenti wet yëpp des na ay poto kon liggéey bu rëy rëy rëy euh, 80 poto yi am na ci poto juróom-ñetti poto yoo xam ne bu ci nekk jël na diggante 13 ak 14 tonnes ci ciment am na poto euh, maanaam dee bi dee bi dee deewu poto yi. am na dee yoo xam tam xaw naa tolloog juróom-ñetti poto yi am na yu ko gën a ndaw ak poto yi nga xam ne moo war a génn ci biti seen dee tam noonu lay def di jël kon nag ci gàttal war na noo xam ne fii. soxla nañ ci béton bu bëree bëree bëri mhm. béton de qualité lay doon béton bi ñu fi soxla. Mhm. dañ ko analyser laboratoire ba ne béton bi baax na. Mhm. ñu soog cee jël. Mhm. ciment bi ñu ci soxla ciment quarante deux cinq. quarante deux cinq waaw moom la ñuy liggéeyee tamit. suuf suñ ci soxla tam analyser nañ ko bañ wax ne bëtu suuf boobu ngeen yore baax na moom seen laboratoire université bi moo ko moo koy moo koy def wala laboratoire bu ñoom dañuy dem ci beneen laboratoire ñu defal leen ko soxla nañ fi tam euh, fer fer importé boo xam ne première qualité lay doon ndax fer importé bi dafa am ñaari qualité première qualité ak deuxième qualité luñ fi indi buñ ko xoolee bu dul noonu rek dañ koy delloowaat ci saa si ndax fii ci université bi dafa am bureau de contrôle xaq liggéey bi nag lépp ci xam-xam lay tegu bureau de contrôle boobu moom moo fi nekkal sëriñ bi sëriñ Maam Thierno Mbacke jiite ko ak ay ingénieurs yu fi nekk ñun am nañ suñu bureau bureau boo xam ne suñu ingénieur ak suñuy architecte ñoo fi nekk luñ bëgg a def ñoom dañuy xool xayma ko toog waxtaan ak ñële ñu ne lii mën naa nekk ñu valide ko ñu def ko ñoom it dañuy ñëw buñ defee ba noppi ñu contrôler bu amee sikk danañ ñu ko wax waaye ba fi mu toll nii alhamdulilahi rabbil alamina am na ci ku ma doon waxtaanal ci ñoom mu ne fii jarul sax ñëw ndax xam nañ ne yéen lu baax rek ngeen fii def loola nag la ko indi mooy ki ñuy liggéeyal muy sëriñ Amdi Xadi dafa wax ne booy liggéeyal ci gën da koy defal li gën mosu ñoo nekk fële bi ñuy liggéey këru mag moom bi ci jumaa ji mu ñëw fa benn bis taxaw ci bunt bi ne ma maam Cheikh Manak Fall mu ne ma na ngeen góorgóorlu bu baax damaa bëgg génn ci jumaa ji xam ne borom jumaa ji moom moom kër gi génn ci kër gi xam ne borom kër gi moom moom jumaa ji boobu rek la ko yàlla fay magul ci yoonu Baye Fall waaye lii ci xolu université bi nga xam ne moom moo gën a ñor sëriñ bi sëriñ bi jox na ko ne ko nag ko liggéeyal kon nag ci li ngeen fekk ci lii lañ nekk Euh, soxla nañ fi borom xam-xam. soxla nañ fi ay murid yu jàpp ci liggéey bi. Mhm. soxla nañ xéewal yi ñu ko liggéey. Ah, xéewal yi nag diggante ciment fer béton. Mhm. suuf. Mhm. ak lépp lu jëm ci bâtiment rek. soxla nañ ko. loolu nag xam ngeen ne jamono toll na koo xam ne. Euh, lépp yokku na waaye nag sëriñ bi dafa am lu muy dundee. sëriñ bi dafa wax ne gannaaw ba mu waxee ne yàlla amul kumpa. dafa wax ne yàlla tëlewul dara. moom suñu mbokkum taalib bi la ñoo ñoo bokk tamit euh, liñ bëgg ci maam Cheikh Ibra ñun am na ñoo xam ne buñ fi ñëwoon tey jii lii ngeen am duñ ko am duñ ko na ñoo xam ne buñ fi ñëwoon ci ñenn ñi li ngeen di ngeen di ngeen am duñ ko am jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp Babil Mouridine ñu leen di ziar bu baax a baax di jaar sama mag gi Baye Djili Niang di toftal suñu sëriñ suñu wasila Fall yaram ñu ngi lay jaar bu baax a baax yàlla gis sa taxawaay yàlla na yàlla gën a taxawaay bi gis nañ liggéey bu am solo bii nga xam ne dénk nañ leen ko li ngeen ci wéyal ni yéen ci def lu am solo tax na lii li ngeen ci bëgg rek yaa na leen ko saa borom defal na ngeen seen bëgg-bëgg ci bàkk Cheikh Ibra Fall ñu ngi di ziar bu baax a baax ñu ñëwoon fii ci ci ndigalul suñ président Abdoulaye Sylla yónni ñu ci ci liggéey bi ngeen di amal ngir ñu ñëw saytu li ngeen fi mu tolluwaay bi fi ngeen ci tollu ak rawatina mu ñëw saytuwaale liggéey bi xoolaale li nga xam ne nii dana jàppandal loo xam ne nii dina leen ci dina ci mën a jàppale bu baax a baax a baax moom comme ni mu koy faral di defee rek saa yu saa yu yoon wi xewlee rawatina yéen ñi nga xam ne nii yéen la bokkal Cheikh Rafal ndax moom Cheikh Rafal lay royukaayam ba tax na liggéey bi moom soobee yàlla dina ci am taxawaay bu kawee kawe kawe lu ko yitteel la saa yu déggantee rek li may njëkk wax mooy na ngeen fa dem saytul ma xoolal ma liggéey bi lépp loo xam ne nii mën naa ko cee jàpp bu soobee Serigne Touba danaa ko ci jàpp ba mu kawe kawe kawe jooju mu am nag ñu ñu ñaan ñun ñëpp mu mu dëppook mbir mi ngeen mi ngeen mi ci soxla te xam nañ ne yéene moom kawe na lii lépp te incha allahu rabbi dina ci am taxawaay taxawaay bu am solo ñu ngi leen di jaajëfe bu baax a baax Fall yaram di di sàkkuwaat ñaan bu baax a baax a baax Fall jërëjëf